عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق وأفرح ذوى اشتياقي للمدينة جمة فجذب وشوق لا يزال يبرح وطبعا أحب المصطفى فإشارتي إليه وثورا بالوداد أصرح فيا ما أحيلا أن نكون بطيبة هناك ترى نور النبل alkaati bi nga xam ne moo doon aaye nit ñi ak groupe bi ànd ak moom def benn cercle pour ñu des fa jàng ba mu jeex kooku ku xamul sax foofa doo xam karaama googu ñi doon aaye ñoo ñu digal kon nag ndigal li foofu la jógee ma jàng ba pare euh, alkaati bu mag bi doxwanteeg man di jooy bàyyi nag ni ñu gën a kiyee la ñu gën a kiyee xam na ne rongo yii waa ji bu ñu ko gisee rek mu futti te xam na ne xaal bi waa ji nekk dara mënu ko fay lu mooy xaalis xaalis day fay xaal na ngeen ngeen bàyyi ko xel bàyyi na lu xëy ci poosam kii dugalal ko ci poos bi waa ji bi feeñ ñun ñu wéy mais eggaguma ci li may wax li ma marqué dëgg loolu ci la waaye nag ñu dem ba ca hôtel ba tey siir ñooñ bari mu ne ma xam nga buntu kër yonent ma ne ko xam naa ko yaa ma ko woon ba demal ba ca buntu kër yonent nga taxaw fa jàngaatal ma xasida bi dem taxaw fa jàng ba mu jeex waaye nag simple wu ko de dama sujjóot ñaari ràkk ca Abu Lubaaba ustuwaanatu ba ne yàlla seedee ne jottali naa liñ ma waxoon ñu wax ko fu ne baax jëlal sa mu jox ma ñaari nusxa ci diwaanam juróom ñaari diwaan yooyu ñu dajale tuddee ko sa Asqaam te turu benn rek la ca mu ne ma demal ma ba ca rawda ba nga teg ko fa rek dem ma ca bind dédicacé bu jëm ci dédicace bu jëm ci rawdal mutahhar ma ñëw ba ci uswaanatu abi lubaaba ma dal di julli ñaari ràkka teg ko fa ne yàlla seede ne jotal naa dem nangu maa geesu nag ndax mën naa geesu fekk dem na bu yegg diwaan te loolu daf ma indil problème <laughs> ma dem ci bàyyi na ko def naa ko góor ñaanal ma pare gu ma def ca ngoon mu ma ana lijaasa ga mën a dénkoon ma ne ko mi ngi nii fekk dénk dama ko lu yàgg su may tukki sax du ma ko ñemee yóbbaale pour ragal cartable bu réer lijaasa bi gën a gudd gën a mët mais nag fañ war a bind kiñ ko liyaasal ak lañ ko war a melale daf ko bàyyi bindaguñ ca dara ma indi ko rek bàyyi taf taf taf taf taf remplir ko ba du ma nett li lam ca bind parce que mun na maa marqué jox bu ko signé ko ne maa ngi la ko jox jubloog xaramu nabawi ma dellu jàkka ja ma dellu jàkka ja demal ci rawda ba julli ñaar rakk ne yàlla sama aj gi ak sama umra ak sama ziyaara boo ko nangoo maa ngi koy def addiya pour Cheikh Ibrahima Niass suma sëriñ suma morom bi génn jàkka ja rek dajeeg benn waay boo xam ne waa Xalab ca Cham ku kii daal man ma ne ko waaw sëñ bi loo xalaat ci ndongo taalube murid bu jaamu yàlla addiyaal ko sëriñam laajul ma kan la mu ne ma ana sëriñ ba ma ne ko mi ngi ci hôtel bi mu ne nañ dem hmm. njëlem mu mel nii ko xam baay salaamaaleykum salaam sëñ bi loo wax ci ndongo boo xam ne dafa jaamu yàlla addiyaal jaamu yàlla ko sëriñam bàyyi waxu ko ndongo bi kan la bàyyi ko waaw euh, miskin muy may buur la daf koy ñaan hmm. yéen laa koy wax parce que yooyu kii miskin muy may buur la mooy daf koy ñaan waaye na ko ah mën na ko jaamu yàlla ga dañ koy nangu fulandi ko joxaat ko nag ki ko defoon ma génn dajeeg benn waay booba miir ma ne ko ndokkeel ma ci ñaari aj mun ma ah ma ne ko duma la ko wax yéen laa ko wax loolu marqué na ma mbégte dama lool parce que ci ëllëg sa nag ci la ñëw nag di tàggoo di taxaw ziara tàggoo tàggoo bay jooy bay waaj a daanu bañ bañ aw ko moo tax ba muy wax ci xasida ba daf doon portale li am rek wa waddaatuhu la astatiu wadaahu jara damu minni walfuaadu mujarrahu fa inna alladi radda alkalima li ummihi sa yarjiuni lil munhamanna ah mu ne ma tàggu ko mënuma koo taggu sax ndax maa ngi jooy te suma xol a ngi jamu bañ fiixee nag mu ne ma ankañ ah, dama ziyaare ba pare ma dégg kaddu ci dariya bi ko daan ma tazhabu anna yaa ngi dem nag loolu loolu comme du marqué eh waaw pour sëñ sëñ bàyyi waat mu ne mbaa caabi ji réer na ba bul tëj sëñ loolu sa yoo ko wax li nag laay wax ne moom waaw mu ne ma lu la lu la marqué nag ci bàyyi ci guddi gàmm comme yàgg nga fekkee gàmmoom ma ne ko loolu lépp la ba tey waaye nag ñaari yëpp li nga xam ne gàmmu bàyyiwu ko kenn liggéeyam la bu muy commencé ñun ba bër set loolu laa yéem na ma ndax ku am ñoo digal am ñoo sant toog di leen superviser mën nga ko doo wax sax bu la neexee waaye nag moo koy woy moo koy firi mooy jàng burda mais la ma gën a neex gën maa marqué mooy am na foo xam ne ci burda ba mu ci eggee dafa jooy bàyyi ji lay jooy booba nga eh, noonu ci burda waaye am na boo xam ne moom moom ñetti nit ko fekkee moom soxnaam man ak benn gidd ci Maroc yu déparé Casablanca jëm faas bésu ajuma muy jàng xaaf jëm suuf ci ci waqafam bi di jàng ba mu yàgg mu ne ikket di jooy kenn nekku fa ndax daanaka buñ fa nekkee mooy kenn nekku fa rek waaw moo tax eh, waxoon na ca koosi ne bakaytu fa afnaytu dumuwa wa mal bukaa siwa xaalatin fi sadri min xurqati shawq mu ne ja jooy na ba jeexal rongoñ te mu ne jooy tàngaay wu nekk la ci xol bi di togg rongoñ yi tàngaay yàgg naa indi ndox ñu ne waaw ñu ne waa ji jeex na mooy laaj bu mujj bi waa ji xaw ma waa ji la xaw ndaw si mu ne xabaar yi Kossy lu la ci gën a marqué ma ne ko Kossy moom lépp ma marqué ndax ummatu bii daj àddina tey seen départ lépp dafa yéemu waaye nag am na lu ko yàlla defaloon lu yéeme mooy commandant du cercle de Kaolack bi tuddoon monsieur Louo yàllaa ko xiir ci bàyyi rek kenn xamul tubaab boobu lan la sax bàyyi nee na ma daf daan cak cak cak oto ba egsi ma foog na service a ko indi su ma ko laajee looy dox mu ne damaa nam ma si yi bàyyi mu ne dafa yow bés ne ko nag ne ko nag très bien sëriñ mu ne ko dafa am lu ma la doon topp tool te bugguma la ko wax ndax xaw ma dina sotteem déet mais léegi France d'accord nañ ci ñu nommé la xaadi yi booba xaadi buñ toppatoo France bàyyi na ko ah jërëjëf yow xarit yi ngay wax nangul naa la ko waaye nag li ma naqari de mooy du ma mën a nangu loolu man mu ne ko oh, xam nga tubaab mu ne ko mais ça va yow tubaab loo ko tey quoi ah, mu ne ko waaw xam nga li ma bugg mooy fonction boo xam ne yow doo ma mun a folli commandant du cercle du ma mën a folli gouverneur du Sénégal du ma mën a folli ministre de colonie mën a folli mu ne ko boobal la ne ko ma nekk sëriñ nekk boroom xam-xam maa ñaan naa yéen ñëpp ngeen def ay décret Ibrahima Niass du sëriñ du borom xam-xam du am benn njëriñ ma ne ko dégg ngeen defuñu la sëriñ defuñu la borom xam-xam boo tax mënuñu koo dindi ma ne ko loolu laa bëgg jërëjëf. fal guddul folle Koosi nag dafa bëri ay affaire Koosi dafa bëri ay affaire parce que ñun ñii nga xam ne foo dem tey gis mbokk. mag ñi nee nañ gàmmu gi njëkk a ci koos yi ci biir néeg bàyyi lañ nekkoon mooy leen di ngeen dem ba du ngeen xaj fii de am na wala amut lettre bi sëriñ bi junju sànq ñépp ko amit jaweeru saay waaye bind na kenn ne ko soobul dugal ci li ala sa naw la yépp mennam alaaj moséerum laa ci xam ku nekk aarifu billaahi tey bul foog ne damay campagnal fayda bii de déedéet ndax fii ma toog yàlla nga ma woon fu tijaani yee yegg ci àddina dana fa yegg am na nag léegi ñu yaatu seen wax ne fu lislaam egg bàyyi waxu fu tijaani yee egg waaye sorewuñ toog naa ci Fass il trois ans xaw ma ñu nekk ci benn commémoration Sidna Cheikh ñaar téeméeraat bi mu fi jógeeg léegi li ma leen di wax nii ci gàmmu la bokk ndax ñi yëpp yónnante leen defar ascenseur bi xat te man booba ma toog lu yàgg ba sonn ma toog ci ab kanape ay nit ñëw nuyu ma ñu niru ay indien maa ngi leen yéen fu ngeen jógee waa ñu ne ma ñun ñu ngi jógee ànd ca fu sori yow nag arab la ñuy làkk yu ma ne ko man senegaal mu ne ma fan ci Sénégal rek ma xam ne xam na dara ci Sénégal ma ne ko Kaolack mu ne barakaat mu ne tudd nga fu am barke waaw waaye dañ jóge ca Kujuraat ca Hind nii daanaka waxuñ lu yàgg sax ndax man boobu séentuma ay kéemtaan mais ma xam ne taaru bay bàyyi la ma toog demaguma gaa yu xaw a gàtt seen bët yi xaw a xat ñëw nuyu ma ma laaj fu ngeen jógee ñu ne ñu ne jóg Jakarta ci Indonésie penk gu sori la mu ne man wa ant ma ne ko man maa ngi dëkk Sénégal mu ne fan ci Sénégal ma ne ko Kaolack moom dafa lu waxatul mu ne ki mu jox ma téere boobu waaye jox ko téere boo xam ne mun na ay quatre cent pages ci arab moo ko taalif mu jox ma ko rek noppi rek dem dafa mel ni dafa xaal xaw ma ma dem ba ci suma chambre ma ubbi fekk téere bi daf koo def ma leen ay fett yu muy yónnee képp kuy weddi waliyu yàlla ma ubbi page bu njëkk ba fekk ci photo baay dama ne jëreet yuux kon nag alhamdulilah maa ngi sant yàlla kon bu baax di def lu mel ni as bu ma gërëmaatee bu ma gërëmaatee sëriñ bi ci effort bi mu def gërëm mbokk yi mbokki deret yi ak mbokki ruux yi gërëm waa ngiij waaw ngiijam ñaari baay baay gaaj ak baay ñas gërëmaat kooku daf ma ci insister damay wax rek ay baat yoo xam ne xëy na peut-être ñi gën a nekk ndaw ñoo ko moom ñoo ko moom mooy ku fi julli tey na nga bàyyi xel yii ak bépp su boo mën a jàngee yonent bi ak dundam ak liggéeyam benn tubaab nee na seet na mbooleem xabaar yonant yi kenn rek moo ci juddu sous soleil ne fang mooy Muhammad ibn Abdullah ñi ci des yëpp seen taarix mënoo ko làqal ci euh, boo ko toppatoowul jamono jii ñu nekk jamonoy communication révolution bi mu def ci àddina bi soo amul certitude ak cëslaay dañ lay fonto waaye ku xam yonent bi rek jeex na nga xam sax ñim defar boo dégg yenn yi da ngay ab scénario buñ defar film di ca jéem wàññi yonent bi di ko def ci ay youtube ak yu ma xamul loolu lu munal yonent bi benn woykat arab doon na wax ku def lu mel noonu nan ko ka sax saxratan yow man li yuhinaha ne na sikket boo xam ne walla kuuy moo xam ne bëjjën yi daf koo yéem mu dem nag mbëkk benn montagne mu ne falam yadirha wa awha qarnahul wailu mënalul montagne dara te béjëri moom fekke wuñ ko looy wax yonent loo ko mun a wax loo ko mun a wax moo tax nag ñu war di toppatoo mi ngi nii képp ku am sëriñ itam na ko toppatoo toppatoo tariixa baag tariixam wàññi léeb yi wàññi karaama yi tey xam les réalités seen dund yi ak seen jëf yi lu màgg la soxlawuñ dara ci yokk am na ñoo xam ne bu dëgg jeexee duñ bugg a nopp yi dañuy wéy rek mel ni ku bind roman policier te diine du roman policier bu jeexee rek noppi boo dee taalibe Baay même chose waaye nag lii moom dama ko def maa gën a jege Baye dafa bind bind bind bind lu jege juróom-ñaar fukki titre ay téere wax a wax a wax a firi alxuraanam am na déglu léegi am na sax six volume gàmmoo mi yépp a ngi fi ñim yar a ngi fi fàngaaral ci biti di gàmmu di xissa sànq ci gàmmu waroon naa ci waxaale lu ma marqué mooy guddi ba bër set ci taarixu yonent bi doo dégg benn qissa israiliya bu wérul israiliyaat mooy qissa yu wérul yooyu ñu ràbb iwej ah. comme waaju waaju nga nit ñooy nga xam ne ko ci da ngay rof su ko ci géej gi jàpp jën teg ko ci jant bi mu ñor nga lekk ci léeb yooyu ko yëpp mi ci ba ci ay téere tafsir alors bàyyi leer maanaam fàngaaral googu ak véracité googu ak général maanaam tabe googu tabe ci xam-xam tabe ci daraja macha allah nga xam ne karaama ñàkk pexe mooy tax mu def ko mais benn ngi nii yonent moo ko barkeel waaye toog na néegam soosu néeguñ ban soosu mu dëkk ba jógee fi léegi banqo boobu mu dëkk ba jóge fi toog na añ di naan ataaya kii xiima ngi nii euh, furna baa ci torong bi kiy teg di teggee ngi nii ñu toog ku fa nekk ci nga bokk rek ay nit ñoo jógee ci kaw gi kaw gi la wax ñun ma jógee bon ci benn dëkk bu ndaw boroom kër gi magam jëmm di jooy ndeke dafa bëgg a tuur ndox munu ko rétention urinaire ba bàyyi ne ah yéen yóbbu leen ko dispensaire xam nga hôpital kaw la dispensaire lañ koy wax ñun ci Medina kon wan na leen yoon feebar faju waaye nag comme ñëw nañ xam nga nu mu def ñaar kaas yu ndaw yooyu ñuy xii mu boole ci ñaar ci benn kaas bu mag ne jox leen ko waa naan ko saw fi mu toog waaye nag day nëbbu day nëbbu de kon nag léegi alhamdulilah dénkaan yooyu rek laa amoon ku am lu foor da koy jéem a xam bu baax ba nga xam ne boo dajee kuy tumpung tumpung yi nga won ko ne ñun këf yóbbuwuñu euh, ku am kilifa de ko nettali yu baax lu la wóor lu neexul wala tooñkat jarul nettali kilifa parce que boo ko waxee sa kilifa moom bu ko waxee ñëpp dégg ko te tooñkat ba bu waxee kenn du ko dégg loolu moo tax nañu am jikkoy muñ ak discipline ak yaqiin maa ngi ñaan yàlla gàmmu gii yal na ko yàlla saxal te yokk ko barke yal na ko yàlla may kattan wér ak baqaan madidan saidan mbokkam yi nga xam ne xam naa leen benn par benn naw naa leen jaxasoo naa ak ñoom yal na yàlla xool leen bëtu sàmm may leen may ñu jàmm ak jëmm ak jëm kanam triade boobu ñëpp a ko soxla di ñaan yàlla yàlla ubbi xol yépp ñu gën a soppante gën a wóoluwante gën sawarante ngir yàlla dégg naa sànq oustaz Baye maa di wax na li la bàyyi ñaanal ankañ ñaan ku yaatu la kon nag maa ngi leen wax li ñu bàyyi ñaanal yàlla ko yàlla nangu nee na naalal munaa man qad ataani awalan wa axiran yaa axiran yaa awala jël ci yàlla jox ñu naala boobu mun nga ko firee am na donc information mën nga ko firee yàlla na am qu'importe yépp yem ci man mun na nekk xabar wala insha comme waa balaaxa ni jàngale naa la yàlla na am wala naa la am na ba pare al mébétam yépp mën koo xam ne ataanaa ñëwal nañu ak Cheikh jiitu fi wa axiran wala mujj a ñëw ñoom ñëpp ku ci nekk sa sa lu tax mu ne yaa axiran yaa awala maa ngi lay oo yow yàlla mu njëkk mujj yonent na njëkk te dara jiituwu ko mujj te dara mujj ko moo ko firi ñoon na woon la la layin lahum man layin alxadida li man arat yàlla maa ngi lay ñaan suma taalibe yii yàlla na nga leen yombalal mbir yeeg càkkutee fi yow mi nooyeloon weñ gu ñuul ci Suleymaan ba su mu di ko mooñ sunguf yàlla na nga leen yombalal mbir yi war faxte yàlla nga dindi alxuyóoda tënk yi réer tënk la ñàkk tënk la ñàkk juboo di tënk la tayal tënk la làmbatu tënk la ñàkk discipline tënk la mu ne yàlla na nga dindi tënk la barkeb gàmmu yàlla na law ci kër gi ak dëkk bi ak Jolof ak Sénégal gàmmu daf ñoo jig am na gàmmu yu bari ay affaire wante terewul gàmmu di gàmmu rek hmm. yonent la ñuy fàttaliku te fàttewuñ ko bàyyi moo ne tadakkartu laa anni nasiitu muhammadan jawaadan yu nasi sayba isra la waa xexi fàttaliku naa sans ma fàtte woon ko sax muhammad li mu koy sàll lu bariwul parce que wooy wee ko laaj muy tab boo xam ne généreux tabe ba nga xam ne dafa may fàtteloo sax euh, taw bu wàcc ngelawal ndemeex upp pënd amatut gàncax gi màndi na ñi ngi séentu yu mu ne daf daf yonent loolu la koy fàttali te itam ku nekk ci ñun nay ñaanal moromam bu fi nekkut te am na ñaan yu ràbbee noonu gis nga ñaan yi ñu sëriñ si jàngal yu ci bëri ñaani yonent bi la dañu dem ba amatul sënët ngir miin gi te ñoo xam ni ñuy yonent xam ni ñuy waxtaanee ak yàlla maanaam ni ñuy ñaanee yàlla ngir xam gi mu ko xam moo tax lépp bépp ñaanu yonent bi boo ko fekkee ci làmmiñu mag ñi ñu ràbb yu niroog moom jàpp ca jarul sax ngay ràbb sa ñaani bopp boo demee màkka bul wax naa du ma topp kenn mu naan rabanaa mu naan rabanaa ankay yooyu yëpp ñaani yonent bi la mais nag bu la neexoon nga wax ko ci bambara olof baax na nañu ñaanalante ndax yonent neen ku ñaanal mbokkam fekk nekku fa yàlla dafa yebal malaak mu naan amiin yow itam na am loolu maanaam da ngay joxe ñaan ak nit recevoir ñaan ak yàlla nangu suñu ñaan yàlla faj suñu soxla yal na yàlla jàngi damb-damb yi yàlla def jàmm ci réew mi yal yàlla def tëjal lii ci turu salaam ci réew mi ba nga xam ne lu dënnu dënnu dënnu fitna yàlla sayoon bi jaay rasulillah wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin